du Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ku sa yaxu bopp jàll ñu ci parrainage bi l'observateur nañu deuxième tour contrôle parrainage yi démb la woon ca ci ñaar fukki yeneen fukki candidat ak benn yi des yépp l'observateur ne nañu dañu leen tëye bokk ci ñoom Aminata Touré Abdoul Mbaye Bougane Gueye Dany Abdourahmane Diouf ak Souleymane Ndéné ci candidat yi ñu rëkkale ca parrainage ba l'observateur gis na ci ñoo xam ne fi la ñuy faxasu ci élection présidentielle ci réew mi li mu yi jàll parrainage yéen bi nee nañu toll nañu ci ñaar fukki candidat ak benn ñu war a di nag yeneen yi ci des ngir mën bokk ci présidentielle yi 2024 yi bu candidat yi ñaar fukki fan janvier ca la lise ko dolli ñu ci ne ci ñu waroon a jaaraat ca kanamu commission contrôle parrainage am na ci ñoom fukk ak ñaar yoo xam ne rëcc nañu ba jàll parrainage am ci ñetti ancien premier ministre yoo xam ne matle wuñu muy Abdoul Mbaye di Aminata Touré di Souleymane Ndéné Ndiaye ñoom ñett ñëpp faxasu nañu ci présidentielle yi 2024 yi ñoom ñett ñooñee newoon fi ay premier ministre di PM journal Le Quotidien ni mu leen tuddee mooy PM petit modèle muy Jules Ndéné di Abdoul Mbaye di Mimi Touré la ñu bàyyi ñu jàll parrainage ñi àndut ak système ñu tëye leen ci candidat yi ñu tëye ci deuxième tour contrôle sursoit ngi ñuy fàttali ne candidat bii di maître El Hadji Diouf la bokk jàllul Bougane Gueye Dany ci la bokk jàllul Amadou Ly Akile ci la bokk jàllul ñu jàll ci xët mu njëkk journal bés bi le jour xooli fa li mu tuddee effet secondaire ci contrôle parrainage bi mi ngi ñuy wax it défi bi xaar état bu Sénégal ci organisation élection yi ak xaalis ba ca war a dépensé ndax ci élection présidentielle yi defoon nañu ci organisation élection yi lu toll dajalee seen parrainage te lañ leen gëj a dégg ñu wax muy Boubacar Camara di Déthié Fall di Cheikh Tidiane Dièye fukki candidat ak benn yi jàll ci deuxième tour contrôle parrainage enquête yéenekaay mi ngi ñuy baaxee secret yi leen may ñu jàll ñu jàll ca palais ba ànd ak yenn ci yéenekaay xooli ndajem remise drapeau bi amoon démb ci diggante président de la république ak gayndey équipe nationale football bi doon dem ci coupe d'Afrique ba ca Côte d'Ivoire le mandat nañu président Macky jox na démb gayndey raay réew mi mu di drapeau national xamal na leen ni la yoon du manko wuti ndam li waaye manko wutiwaat ndam li lay doon tax mu njëkk ne gaynde yi mission conquête la def fii ca Côte d'Ivoire laas kay bind nañ jiitu réew ñaax na gaynde yi dojj na leen soleil national ne ko ba xamal leen ne fa ngeen nekk biit bu ngeen dugal xam leen ne ñun ak yéen ñoo àndandoo di ko vibrer sursoi nañu yamu ca ndax moom président Macky nee na gaynde yi bu ngeen fi indiwaatee coupe bi di am neexal boo xam ne ku leen ko waxoon du ngeen ko gëm ñi tàmbalee neex ci ñoom 0 janvier Serge Casemajou du directeur général Boudakar Nav l'Observateur xëy ko dalal ci li contrat bu ñaar fukki ak juróom bi ñu séqoon ak état bu Sénégal signé woon ko atum mu war a jeex ci gi directeur général bu Dakarnave ma nga fay leeral li waraloon contrat ba ak la ca liggéey nee na état bu Sénégal amul obligation ci renouveler contrat bi wala observateur ne ko bu ko luy doon conséquences yi Serge Casamajou ne leen loolee état bu Sénégal mooy ki ko mën a feneen fu ñuy xaar état bi mooy coow li am ci mburu gerewuñu ñi ne duñu gerew bokk ci collectif national des boulangers du Sénégal seen njiit di Xaadim Sylla mi ngi wax ci libération li tax bañ ne duñu gerew nee na duñu gerew te njëgu mburu mi kenn du ko yokku ci réew mi mu yokku ci ne boulanger yi ne dañuy gerew ay sàmba sugum gay lañu yoo xam ne ñu benn njariñ secteur boulangerie seen intérêt bopp ak i santas moo leen tax di aalu ak di wax ñu wax ci lu doy waar li ci page 8 bu l'Observateur El Hadji Diaby benn immigré la bu tribunalub Tamba tëj atu ndax ndayam ji ko jur yéenekaay bi nee nañu moom la jàpp dóor ko jam ko ba nday ji mujjee urgence